وأشهد أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام القائل لا تشد رحال إلا إلى ذات المساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل في علاه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب mbokk yi ginnaaw ñu sant yàlla subhanahu wa taala moom mi sàkk ko ba soob waaye mu gën la ci ñu ngi seede ne moom yàlla subhanahu wa taala amul kenn koy jaam ci dëgg dul moom kese moom mi ñëwul kenn kenn ko ko moom mi nekkul nawul ci kenn ñu seetal suñu sang Muhammad alayhi salaatu wa salaam moom mi ñu wax ci xadis ni amul kenn ku war a tukki jëm ci jàkka di fa sàkk di yu yoo xamante ni la nga fay am doo ko am ci beneen jàkk bu dul ñetti jàkk yi mu ni al masjid al haram mooy ca Kaaba la fa nit mën a amee ci yiw mën a kaw ci beneen jàpp mu ni wa masjidi haada ak sama jàkk ji mooy jàkk ji nekk ci Madina ñetteelu jàkk ji mu ni wal masjid al haram wal masjid al aqsa ak jàkk jee nekk ca feeg Jérusalem mbokk yi ñuy dégg suñu bopp dina dégg dara yàlla subhanahu wa taala ni ñu ko waxee ci alquran yàlla mu ne na ngeen yóbbul bu yéen jullit ñi te yóbbul bu gën te fépp fu ngeen mën a dem mooy rafetal def ay ndigalam bàyyi ay tere mbokk yi suñu xutbay tey ginnaaw bi ñu jàllee ci surutu wuubul xaj sàrt yi tax jullit di war def xaj duggoon ci arkaani ponk yi jàlloon ci adwaa yi mooy xeetu ak yu war a daj tey ci insha taala ñu ngi fas yéene xutba ci faslul buqaail muqaddas mooy bërëb bi nga xamante ni bërëb yu tedd la te ñu bëri bu ñuy dem aji dañuy jàll ca Madinatu Munawwara la ñuy jëkk soo ko dem Makka wala Makka la ñuy jëkk léeg-léeg mujjee Madina Madinatu Munawwara amul lenn ci manaasibul xaj Madina amul lenn lu jëm ci wàllu xaj nañ ko war a la am ca Madinatu Munawwara ay ziyaara mbokk yi amul benn jullit boo xamante ni lii nekk cofeel ci moom mu nekk mu bëgg lool bëggee lu ëpp ci moom lool dégg di ko ci doyet déedéet da nga cay doy mooy mu tukki dem fa ba gisal ko boppam dundal ko boppam parce que bokk na ci cofeel boo xamante ni bépp jullit boobu xaaral na ak kee fekk dem man yan Madina ko mën a wax muy dëkk yoo xamante ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ci bëri ci ay xadis bokk yi dëkk yoo xamante ni la nga koy wax ci ay jéego ñu ngi gën di def def yaa dëkk yoo xamante ni la nga ko mën a am ci yool ci bërëbu jàppee mën a dal ci beneen beneen bërëb ñuy wax ay jàpp muy bërëb yoo xamante ni bërëbu nangukaayu ñaan la muy bërëb yoo xamante ni am na ca waxtu yoo xamante ni bu la ko fekkee la la borom bi subhanahu wa taala def mooy izhabu maghfuran lakum dem leen leen ñëpp jéggal na leen seen bàkkaar mooy maanaam mbokk yi bërëb yooyu bii di Makka Mukarrama dañoo fay defee aj yàlla moo dugaloon ci suñu mag bi Ibrahima alayhi salaam ay digal digal bi ci njëkk mooy wa id yarfau Ibrahima alqawaacida min albayt wa Ismaacil rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim tey di kaaba ba ñu ngi wax ni malaaka yi ñoo ko tabax muy awwala baytin wudi'a linnaas muy jàpp ñu njëkk ñu ñu njëkk a def ci kaw suuf waaye ca bu faanu yonent yàlla Nuux alayhi salaam mooy ca mbënn fasi bu nee ci la kaaba ga laa wante Ibrahim la yàlla waxaat ni ko yëkkati waatal fondation lii nekkoon kaaba ginnaaw yëpp ci kaaba wax fii yàlla ko it mawwa'naa li Ibrahim makaana al-bayt ci la yàlla leerale rek Ibrahim ni ko fii nii la fondation bi nekk yëkkati waat waaye la fa yàlla digle ci ginnaaw bu ñu ko yëkkati ko fondation bi allaa tushriku bihi shay'an wa tahhir baytiya lil-tawwaafiina wal-qaa'idiina wal-'aabidin la la koy tax a def lañ fay def jubluwaay bi mooy wéetal yàlla bañ faa bokkaale ak yàlla kenn doo ko def lu dul jàmm yàlla mu mat julli ñaan ak intikaar mbokk yi bërëb yooyu fii di Kaaba ga yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ni la salaata fi masjid alxaram mu ni wa salaatu fi masjid alxaram afdalu min miati alfi salatin salatin fi ma siwa mu ni julli ci foofu di kaara la nga koy am ci yoon ñu tolloo dix mille prières yoo julli ci jàkk moo xam naafila la moo xam sunu farata waxtu woo ko julli ñu ngi koy nattale ñu toll ci lii muy prière bu julli da axtaru la wax mooy moo ko gën est ce que bopp yi foofu ñuy wax kaaba ga yooyu gii nii ca fa wër kaaba ga dong nga koy amee waaye fi ñuy wax ci xajjul xaram gën naa yaatu la ñuy gis noonu ci kaaba ga ci télévision wala ca matax fa ñuy tabax wante ay benn superficie la surface boo xamante ni yàlla moo leen di dimbali mu fixé ko fixé mu ne ko surface bi yëpp képp ku fi julli am nga yoon di mbir bi loolu nag mu yóbbu lenn lu ko jàll nga ne man kon julli gi doy na ko julli fii nga xamante ni moo ko teg ma dal ndax ci xaram bi la ko yàlla moo ne kon dafa xayraat mbokk yi dafa bokk ci ci bërëb yu tedd yi ginnaaw xam ne mu xaram bi dafa nekk ci ay yoon léegi ba ñu mu naw wara muy daal di daaw ci tiram muy këru gàddaay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bañ koy génnee Makka dafa génn ba tolloog montagne yëg ci kaw montagne ci collo montagne daal ni amul benn dëkk boo xamante ni bëgg naa kon moo bëggee màkk bi bu dul woon sama xeet bi génne in mu génne màkk bi mun ko mos mos a jóge daal di wane ginnaaw keroog ba mu demee madinatul munawwar ñaan dam fa ñaan mooy allahuma xabbib ilayna al madina ka xubbina makka aw ashadda yow yàlla yàlla ñu bëgg loo madina ji bëggee bu mel ni gën a bëgg màkk wala bu xaral loolu mooy wane teddaange fii di madina bi mën a waral ko yonente bi alayhi salatu wasalaam mbokk yi mu bokk la ci fii di madina bi mën a waral la fa nekk ci ay xéewal yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na képp koo xamante ne mën ngaa faatu fee ci mari na nga faatu fee ndax képp ku faatoo ba mu denc la ëllëg yow ak qiyaamati man alayhi salatu wasalaam dina la ram mu ñëw di wax waxee ci pàcc bi nekk ci madinatul munawwara moom alayhi salatu wasalaam moo ñaan mu ni allahuma jaalni madinati diafay ma jaalta li makkata min albaraqa yow yàlla yàlla na nga def pàcc ba nga def ca màkk yàlla na nga ko ful fii ci madina ba tax na ñi nga xamante ñoo nekkoon ci madinatu munawwara meññeent bi ñu gën la génn ci seen tool day ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam jox ko mu ñaanal leen lam tey ñaan mooy yal na yàlla barkeel lii di meññeent meññeent comme ni Ibrahima alayhi salaatu wa salaam ñaanu ca Makkata Mukarrama ca la ko yàlla wàcce ci xéewal dëkk boo xam ne ay xeer dong nga fa nekk te loo fa teg loo fa def teg ko fa luy sax ci bépp dëkk ñaan boobu yàlla nangoo na ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam fay Madinatul Munawwara mu bokk ci ba tey barke gi nekk ci Madinatul Munawwara yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na man tasabbaha kulla yawmin sab'a tamaratin ajwa lam yakurruhu fi dalika al-yawm sammun wala sehmun mu ne am na tàndarma bi nekk Madina ñu wax ajwa mu ne tàndarma de képp ku ci xëyee lekk ci juróom-ñaari tàndarma nee na buñ la joxoon poids bu sax du la jàpp du la du la rek kuñ doon jabare du la du la jàpp loolu barke boo xam ne alayhi salaatu wasalaam ñaan na ko ci loolu nga xam ne mooy samara yi nekk ci Madinatul Munawwar rawatina ci tàndarma ji tudd aj wax mbokk yi dafa bokk ci béréb yi nga xamante ni ma nga ca Madinatul Munawwar te lañ fay def ziyaara la bokk ci manaasibul xaj fee di baqiya fa saxaaba yu bari tëdd bokk ci Usmaan bin Affaan radiyallahu anhu ak njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam baqiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana toog ba guddi gi di bëgg a jeex maanaam ba fajar di bëgg a jot mu dugg ci baqiya ñaanal waa Baqiya ku ñu tëdd soo ko delluwaat moo tax ci xadis bu gudd Jibril mu yox yonent bi alayhi salaatu salaam mu ni inna rabbaka ya'mur an tabdi ahla al-baqiya fa tastaghfir lahum xadis muslim moo ko solo mu ni Jibril mu ni ko sa borom de dina la digal nga woo waa Baqiya ba ñu ñëw yàlla jéggal leen seen bàkkaar loolu moom gën ne waa Baqiya ni tëdd ca armeelu Madina am nañ ko kon yow li nga xamante ni yaay dem di ziyaare ca bërëb yoonu bokk ci bàqeem na nga xam yaa ngi dem ci bërëb tedd boo xamante ni ñi jaar yoon seen alal jël seen njaboot jël seen bakkan tey la ko ngir islam ñoo ko dundee kon lépp la boo xamante ni boo génn la nga ko war a njëkk yëg mooy wàccee sa bopp xam ni ñu gën ci xeet ñoo ñi nga xamante ni ñoo ko tënk te amaana jéego yi ngay dox yaa ngi dox ci tànk yoo xamante ni ñoom ñoo ko jox jaara seen tànk rawatina tànk yooyu ba alayhi salaatu wasalaam mu bokk ci béréb bi nekk ca Madinatul Munawwara am ay beneen wante bokkul ci manaasibul xaj yi la fa nekk moom mooy rek ay beneen mooy fee di masjidul Quba yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax ni képp koo xamante ni waajee nga sa kër jàpp ba sell dem ci masjidul Quba jullee fa salaat bu mu mën a doon moo xam naafila la moo xam julli farata nee na am nga yoolu ku umra jëmmi julli bi rek ci jàkka ji am nga ci yoolu ku yéene dem Makka tawaaf def Safa ak Marwa watu jëmmi liggéey boobu yëpp ñu ngi koy fay muy tudd umra ci rakka boo gën ci feetu Quba kon loolu ay gënal la yoo xamante ne am na ca madinatu munawwar waaye bokkul ci manaasibul xaj ba tey bokk ci ngënal li nga xamante ni wala ay bërëb yu ñuy ziyaar ca madinatu munawwar bokk na ko ci masjidu qiblatay mooy jàkka ja nekk ca xay bani saad foofu dafa bokkoon ci qibla yi jullit ñi laata yàlla di wëlbu ci qibla bi ñuy jublu màkka fukki weer ak juróom benn laata bi yoon saa salaam gàddaay jóge màkka dem madina def nañ madina fukki weer ak juróom benn ca madina bu ne julli masjidul aqsa la ñuy julli ba keroog borom subhanahu wa taala digale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko na wëlbatiku ndax gis na ko saa yi koy julli muy yëkkati boppam li nekk ci xolam mooy ñu wëlbatil ko lii nekk la def ko màkkatal mu garab yàlla defal ko ko keroog ñu ni salaatu rudaa ay lañ doon julli gis baa daw la tàkku saa wante ba nga xamante ni aaya bi bi mu wàccee mu ñëw wax ko waa ñi nekkoon ci boobu lee quartier ci masjidu xibla tey ni leen aaya bi de wàcc na la mu digle mooy bu ñuy julli si nañuy jublu fee di masjidul xaraam ba ñu julloo ci masjidul aqsa mbooloo bi wëlbatiku jullee li nga xamante ni dëkk jàkkaarloo fee di masjidul xaraam kaaba loolu tax bërëb boobu ñu koy wax masjidu xibla tey jàkka ji nga xamante ni ñaari xibla la yii bërëb ay bërëb yoo xamante ni am na ay ngëne la istuwa ca Madinatu Munawwara ñu war koo xam war a jël ci yëpp ya fa nekk waaye nekk bërëb yoo xamante ni dañ ko dafa bokk ci lenn ci manaasik al-hajj أقول ما سمعتم فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول نبي تعلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam di yàlla du wàccee waat benn yonent ginnaaw moom mbokk yi fii di Madinatul Munawwar xujjaaj yi war fa njëkk wala ñu mujjee ko laataa ñuy dem ca Makkatul Mukarrama ngir jooxe fa seeni farata bii di aj Madinatu Munawwara mooy dëkk bi nga xamante ni Mus'ab ibnu Umayr keroog ba ñuy laataa ñu génn yonent bi alayhi salatu wasalam te amuloon ndigal ngir gàddaay dem Madina Mus'ab ibnu Umayr mooy ka dem fekk Madinatu Munawwara ña fa nekkoon ci ay kër yu gëm yàlla doon kër yu néew mu fexe ba ña fa des yëpp ci ay wér mu ragise ko ba ñëpp gëm ni laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam ba ne ko waa Makka ji la xamul ñu ngi ñoo la xam ñëwal fii ci madinatu munawwar dëkk ak ñun ñu ànd ak yow ci liggéey bi nga xamante ni mooy tasaare bi islam Mus'ab ibn Umayr bi bokk ni bokk na ci ñi tëdd ca fee di ko xëpp mu bokk ci bërëb yi ñuy ziyaara bi ci Madinatu Munawwar Mus'ab keroog ba mu faatoo daanu ci xaswat Uhud bañ ko boole ci ñuy denc cangaay ga mu soloon yëre yi mu soloon sax matul woon jëmm jépp pour ñu sunt ay ñax la ñu dee jël mottalee ko la des ci cër ya soog koo rob mbokk yi muy bëréb yoo xamante ni jullit buy dem ca madinatul munawwar war nga bàyyi xel yéen ñi xam ni ay kàngami islam ñoo fi tëdd nga ànd ak tawaadon wàccee sa bopp doon jaamu yàlla mbokk yi ca madinatul munawwara daf ca bokk ziyaara bi ñuy ziyaara bi rawdu yonente bi alayhi salatu wasalaam fi mu wax ni nekk na ci diggante ci mimbar bi ma taxaw ak sama néeg bële rawdatun min riyaadil janna boo fa toogee mel na ni yaa ngi ci jardin ajjana mbokk yi ziyaare yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa bokk ci teggi ni ñaan bi nga koy ñaan sax nga wàccee say kàddu yaa ayuha alladina amanu la tarfaru aswatakum fawqa sawti nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di fees dell suñu xol nga ñëw di ko ziyaare si war nga am yëg-yëg bu foor bu dul ngay jël sa téléphone sax nga ne da ngay filmé te mu nekk moo sax ci ziyaare rawda yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba muy dund moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam la yàlla waxal ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam bu mu toog mukk ngeen di wax seen i kaddu du féete kaw ay kaddu saxaaba yi ñu déggee wax yooyu ñu wax borom subhanahu wa taala da nga gis ñaar ñu toog di waxtaan boo xaw du ñu xaw a déggante sax li ñuy wax ndax ni ñuy wàccee seen kaddu ci kanam yonente bi alayhi salatu wasalaam beneen maanaa bi mooy laa tarfau aswaatakum fawqa sawti nabi bu leen mukk yëkkati seen kaddu ci kaw kaddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne yow de li ngay def xamuloo lu mu doon ñu ne la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lii la ci wax nga ni waaye indi ci sa xalaat yow yaa ngi yëkkati sa kàddu ci kaw waat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te yàlla waxoon ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu mu leen indil la jëf leen ma aatakumu rasul fa xusu wa ma nahakum anhu fantahu kooku muy alayhi salatu wasalaam kon bokk na ci teggin di ziyaare foofu di raw baan ba mooy nga ànd ak dëkk ànd ak dal say ñaan sax nga wàccee say kaddu ba du am benn rëdd sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi dafa bokk ci loo xamante ni mën na yàq sa aj sax te doo ko yëg mooy nga xër ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam ba nga ni faw ma laal léegi barrière di ko raay sa kanam la ngay def doo circulé dafa nga jëm Ibrahim ba mu koy fàq ba ko yàlla di waajaloo daf ne ko na nit ñi ñëw te fi kenn bokkaale yàlla romb nañ foofu sax dem ba ca Makkatal Mukarram ñu ne fii de muy maqaama Ibrahim fii Ibrahima taxawoon ñuy seen fa tànkam bi màggee woon di tabaxat kaaru nga koy def di ko raaya te mu ne koy def yooyu yëpp dafa xeet bokk ci xeetu bokkaale mbokk yi kenn ku ci nekk di dem ci bërëb yooyu di ab jullit lu sa xol sori ci yàlla ak bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam na nga ànd ak sa sago daa mun cee def lépp mu ànd ak jaamu yàlla ànd ak sellal ànd ak tawxiid ñetteelu bërëb mbokk yi ci bërëb yu tedd yooyu mooy masjidul aqsa muy bërëb bi nga xamante ne tey jii yonente bi alayhi salaatu wasalaam lam wax ci nii képp ku gën a faatoo madina na nga ko faatoo ndax ëllëg yawmal qiyaamati ana lan moo gën a tedd nga génn sa bàmmeel dend ak raw yonente bi alayhi salaatu wasalaam ana lan moo gën a tedd ëllëg yawmal qiyaamati nga dekki fekk yaa ngi faatoo màkk taabu nga dekk dese ana lan moo gën a tedd ëllëg yawmal qiyaamati nga dekki fekk masjidul aqsa mu ngi neese rek mbokk yi ñii nga xamante ni ñoo nekk ci masjidul aqsa ñu leen di bundu xataal di leen rey di leen fitnaal julle ci jàkka jooju mi ngi toll nga am deux cent cinquante prières yi la yàlla nangu moo nekkoon wàccuwaay yonent yi alayhim salaam masjidul aqsa foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroo képp ku yàlla mos a yónni nga di yonent mu jiite la fa soo ko rañaan dem jël lii ñu bëgg a def nii muy julli bërëb ba mu wàcc waaye ci islam bërëb bu tedd la mbokk yi nga xamante ne ñu ngi koy défendre ñu leen koy faat yàlla mu ne bu ñu foog mukk ñooñu nga xamante ni ñu ngi xeex ngir défendre loolu dañ leen a rey rek mu nen na bal ahyaa'un inda rabbihim yurzaqun yàlla mu ne maa ngi leen di defal ay xéewal ci bar sax gën yi nekk xéewal yi jóge aljana di leen ko fekk kon mbokk yi ñetti bërëb yi mooy ñetti bërëb yi nga xamante ni yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ak jullit warul jóge fenn di tukki ci jàkka ngir dabu fa ay yoon mu ngi ci ñetti jàkka yi muy masjidul xaraam wa masjidu nabi salallahu alayhi wa sallam wa masjidul aqsa suñu xujaay bi yàlla na yàlla defal leen xajjan makuuran yàlla defal leen saayan mashkuuran yàlla defal leen zanban makuuran wa amalan saalihan mutaqabbala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل اللهم اهدنا إلى صراطك السبيل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله